Mm-hmm. non problème de sécurité moom je crois que. lu bëri bëri bëri moom wàññeeku na caaro yi. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que bu njëkk moom caaro yi moom. boobu mu daan buñ la nee da dem caaro yi. non da tiit mais léegi ay. Grand ngay tiit. waaw dina wàññeeku sax mais mën naa ni sax presque amatu fa. parce que vraiment am na. Euh, euh, des de proximité. La, gendarmerie qui est au cœur de Tiaroy, avec euh, récemment une autre commissariat qui, qui, presque au niveau de Tiaroy, qui est à Califourchon entre Tiaroy et Djamagatskamba. Okay. Donc, nous en jonction avec la municipalité qui a un dispositif sécuritaire, nous avons fait Mais au-delà de là aussi, je crois que la population, ni ñu amee un engagement su le volet de l'environnement noonu la ñu amee un engagement sur le volet de la sécurité. Mmh. donc tey okay. je donne l'exemple d'un quartier Pikine Bougoune à Thiaroye. Mm-hmm. wu. parce que y zone bu amoon des agressions la le matin police dañoo def intervention. plainte yi doon na fa bëri mais quartier yi yëpp bañ jëlee def comité de vigilance. Mm-hmm. dafa wàññi lu bari. Mm-hmm. donc c'est vrai nag comme li ñuy wax volontariat amatul. oui waaw y' a y' il faut accompagner. waaw volontariat moom amatul xam nga tu ne peux pas prendre un jeune qui a 30 ans 32 ans nga bëgg mu nekk un volontaire à mm-hmm. Mm-hmm. donc sur ce aussi je crois que il faut quand même que que ñun comme comme on est de le faire accompagner tout ce qui est de bilan parce participation euh, citoyenne kër bu nekk 1000 francs ou 2000 francs dina mën a permettre ñu am textile bi commune bi ñëw jàppale leen donc pour man loolu bu ñu ko defee dans toutes les communes. la question de la sécurité dina gën a wàññeeku. mais nag daa am na beneen sécu am na beneen beneen beneen violence nga xam ne nag boobu c' est une nga xam ne loolu état si a jël ay mesures. Hmm. sport bi lamb. sport bi <laughs> lamb c' est à dire que la star se trouve à Pikine. Hmm. tey Thiawane Ndiak Sao si dafa ay mbër quand on parle de lutte on parle de la hmm. banlieue. mbër bu buy dem amul problème. mais buy ñibbisi buy ñibbisi mooy problème bi. malheureusement sécurité bi léegi. cortège police dañuy def cortège ànd ak ñoom. mais hmm. munu munoo munoo. munoo ko wax wax ba du am ay rëkk-rëkk. Hmm. donc yooyu vraiment tamit hmm. c' est des choses qui gangrènent vraiment la violence. mooy les vols à l' arraché. vols à l' arraché agression agression avec avec avec avec. agresseur yi kay léegi dañuy xaar jour lamb rek. ñu jóg ñu dem ils sont dans le cortège buy ñibbi si nag vraiment police dañuy topp mbër bi nekk si kanam. mais si ginnaaw ce qui se passe. doo xam ne xew tout à fait. waaw donc hmm. loolu moom vraiment mooy violence bi nga xam ne tey mooy violence bu gën a grave au niveau de la banlieue. Hmm.